mel na ni am naa si cas. parce que du du cas boo xam pour man la mais xam nga commerçant moom lépp lu ko dal. Mhm. dafay laal mbokkam quoi. ca vraiment chaque jour ma gis euh, sama mbokki commerçant yi mu di leen dal surtout voyageurs yi ñuy dem sii nag ñuy dem Gambie ñëpp. parce que même am na sama benn frère bu moo jigee sax boo xam ne moom it dal na ko ci wàllu phobie kon mel na nii dal na ma quoi. ma changé am kaa nag vraiment parce que ñun dañu nekk ci benn événement Kazu Rajab ñu joxoon ma ci 45 mille yoo xam ne yëpp faux billet la mais àdduna bi dafa toll foo xam ne lu waaye def sa bopp nga ko def non ay ñeenti 10 ak benn bi 5 mille fekk mu ñëw jënd si man 45 kilos yàpp moom la jëndoon si man mais euh, waroon maa jox prix ay 100 et quelques mille mais 45 mille yi kii la quoi faux billet la woon. Mm, faux billet yi moom wax dëgg yàlla jamono yi moom xaw naa bari lool ci marché bi am nañ ci camp waaye nag. wax dëgg yàlla dimbali ñu ci amu amuñu ci amu mus ñu ci am bu am solo léegi waaw yi yiñ ci jànkonteel léegi-léegi mu jaxasoo ci sa xaalis nga dem di verse banque ñu ni la eh, maanaam boo yoree xaalis bari noonu di ko verse banque ñu jekk ba ak ñu génn ci benn billet wala ñaari billet rek ni la ni lii fooy billet la benn billet lu gën a bari sax benn billet la def nañ ma ko ñaar yoon baa ñett yoon daal yoo xam ne ay dix dix mille di yi ci ëpp dix mille la man waaw yi ci ëpp dix la ay 5000 moom jox nañ ma ko fii ay yoon waaye benn bu ci ne bu may wàññi bu ma ko laalee rek danaa ko xam 5000 moom yomb naa xam lool. mosuma am kaas yi benn problème si problème phobie. mosuñu ma see nax. waaw des fois naa ko gis ndax parfois da nga dugg si benn place fekk ñu taf ko si bunt bi mu xam ne leen lii phobie la ñu daa ko si taf quoi loolu rek moom moom mooy boole moom quoi mais bu dul loolu la moom waaw. am na si beneen kii ñaari biir 10 000 la woon 20 000 waaw boobu nag lañ ci am cas quoi mais nag tërëwul daje nañ fa ñu bari ñoo xam ne tamit am nañ ci cas yooyu quoi mm-hmm. waaw. waaw bari na trop ci dëkk bi surtout bu ñu jubee ay jamono événement yi ay màggal wala ay gaama yooyu gars yi dañuy profité di ci di di di ci dugal ci dëkk bi moom moom wax dëgg yàlla metti na daal metti na parce que tamit bee 10 000 en général képp kuñ ko dugal ci sa xaalis rek man mën na la handicap daal parce que tamit durut bee bu ndaw quoi dafa xaw Eh, xaw day métti daal métti. di ko méttilu heureusement moom nee na démissionné na ñoo ngi xaar état def liggéeyam justice def liggéeyam ci moom parce que euh, même li nga xam ni sax dal na ñoom cen seek ñu bàyyi leen noonu ak ku mel ni euh, rapport bi ngaaka ak ñeneen euh, bàyyi bi leen bàyyi simple na parce que bu daloon benn waay nii rek comme comme ñu baal ma ci kàddu gi nit ñi nga xam daal amuñu peut-être kàddu gu sori walla yooyu coono ñu ciy daj. par rapport ak ñee euh, dafa am différent kon ba tax na ñu bëgg état mu def ci liggéeyam. naqarinu lool la def ndax euh, ñun suñ assemblée suñ assemblée bii ñu am nii wax dëgg yàlla buñ sañan ñoo nga xam ñoom ay roywaay lan bu ñu amee suñ luñ bëgg ci réew mi lu mu doon ñoom ñoon war a porteel suñuy wax yóbbul nu ko fa mu gën a kawee ah ñu doon ay nit yoo xam ne wax dëgg yàlla ñun ñun fonk lan war ñuy dégg ci ñoom loolu lu ñaaw a ñaaw la xaw ma ñoo def xaw ma defuñu waaye daal wax dëgg yàlla déggandéem gi rek ñu leen ciy tudd rek lu ñaaw a ñaaw la. depuis bi tey bi de maa ngi koy dégg surtout information lu ci ëpp xam ñun moom demuñu mais information laa koy déggee vraiment mais dafa doon loo xamante ne nit su fekkente ne da nga bokk ci ñi nga xamante ne da bokk ci exemple réew mi parce que réew moom réew moom ñëpp ay exemplaire lañ. mais dafa am ñoo xam ne dañ leen a jiital kon ñoom bu ñu leen jiitalee lu toll ne assemblée nationale ñu teg leen fa ne leen yéen bokk leen ci ñi nga xamante da ngeen wax seen soxla ci réew mi di ñu waxal jóge suñu kàddu jox ñu jox leen ko ñoom kon ñoom war nañoo euh, génne feneen fudul foofu néew ma nag moom la néew ma du moom man xamuma xañ na moom xam na yàlla xam na en tant que citoyen moom mooy na ci yoon dox ndànk parce que loo gis tamit tey la. waaw waaw moom moo xam muy député moo xam ku mën a doon rek. li ñu li ñu soxla mooy yoon def liggéeyam daal topp leen ba jàpp ba jàpp leen def li ki yoon wax daal. waaw day yàq commerce day yàq économique bu Sénégal rek daf koy yàq ba tax na euh, may interpeller toujours état rek ñu sensibiliser askan wi te jàppale leen ci problème phobie yi parce que baaxul daal euh, baaxul ci économique bi ca dafay yàq lu bëree bëree bëri. ah mbirum phobie de ni mën na def ba xeexu ci Sénégal moom vraiment dana jafe parce que nit ñi kenn nekkul seen biir néeg ñu ci bëri kenn nekkul ci seen salon kenn nekkul ci seen kii parce que ki am machine am nekk biir néeg wala mu nekk biir këram wala mu nekk si appartement di def yu bëri am na loo xam ne mënoo jékki-jékki rek xam ko ci moom peut-être loolu moo feeñ mais am na ci lu leer na ma ne li nëbb moo ëpp li feeñ. Ah, waaw rek ñu. bàyyi ci xel bu baax rek kun joxatib xaalis ndax gaa yi koy dugal ñu ci bari man boog man yéen ma ko jox ma xam ko yëpp dañ koy booleeg beneen xaalis day doon lu matu cinquante mille ñu dugal ci benn billet yu baree bari noonu lañ koy defee léegi nag yooyu moom nu eh, la jox rek nga wàññi ko te settantal ko ñaare boo ko settantalee rek yàlla mën naa dogal nga mën koo gis waaw xanaa ñu ñu gën a vigilant rek vigilant moytu bu baax a baax mais parfois la koy jox doo ko dañ koy booleeg dañ koy booleeg lim bu xaw a bari daal yow daanaka pour nga xam ko da ngay da ngay xaar bay dem banque rek ñoom ñoo koy détecté génne ko. muy lu bon rek lu xam ne baaxul luy delloo réew gi ginnaaw la loolu avancement am réew Sénégal ñu ñoo fi dëkk ñoo ko war a wan a mën a defar muy député beeg président beeg ministre bi see am ministre bi sénégalais la député bi sénégalais la citoyen bi aussi sénégalais la loolu képp koy def rek baaxul te yaa ngi lor population bi yaa ngi lor saw askan.